jërë ngeen jëf mbokki internet yi kon foofee ca cour suprême nag un nouveau rebondissement am na di jëm ci dossier diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang euh, cour suprême nag date bu ñu jàppoon rek ne dinañ euh, sëgg ci procès bi dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye euh, ñi ñu woon ko nag initialement ni ki le novembre bi di ëllëg finalement mu mel ni procès boobee du am. ndax cour suprême dafa décider que procès bi daal duñu ko daal di amal la koy justifier rek mooy ne euh, dossier bi nekkul woon euh, ci dossier yi ñu bindoon euh, yoo nga xam ne nag kon cour suprême war na caa sëggani ci date bu ni mel information yi loo xam ne nag bu ñu sukkandikoo ci naataango yi nekk ci Sénégal mu ngi jógee ci tuyénikaay bi lee di source a mu baax kon ci sunu naataange ba tey ñu ne ñu fàttali ne mbir mu ni mel nag mu ngi jóge woon ci condamnation Ousmane Sonko euh, niki altine 8 mai 2023 ci cour d'appel bu ndakaaru peine bu tollu ci 6 mois de prison avec sursis euh, pour diffamation ak injure publique ci nak litige bi nga xamné ne na ci digganteem wala dox na ci digganteem ak ministre du tourisme euh, di woyo ci turu Mame Niang cour d'appel nak kon dafa daldi confirmer won rek li nga xamné modi montant des dommages et intérêts yi nga xamné nak en première instance mom la juge bi fixé won daan ko kii Ousmane Sonko mu tolloon ci 200 millions de francs CFA malgré la confirmation ou cette nag en appel euh, la tenue du procès nag moom foofu nga xam ne moo di ci suprême euh, dafañ ko dañ ko suspendre la ko waral nag mooy omission dossier bi euh, dans le rôle loolu nag kon jur ay question ci circonstances yi nga xam nak mo entourer exécution ou ak les implications éventuelles ci nak li nga xam moy la suite judiciaire yu dossier bobé diggante Mame ak ki nga xam modi Ousmane Sonko kon nag des xaarandi rek ana fan lu wanante di mujjee ki gëtam ci dossier bu ni mel ak ku d'appel ba xam ndax nag dina dëggal daan bu ni mel ci kaw Ousmane sonk wala dina neenal loolu dees xaarandi rek ba keroog ñuy programme dossier bi waaye bu sukkandikoo ci naataange ci nekk ci Sénégal xamle nañu nag ne source a daal ci information yi mu génne tey bokk na ci ne dossier bi nañu ko waxee woon auparavant ne dinañu ci sëggal le 23 novembre bi la foofu ci cour suprême loolee du mujjee am ndax nag dossier bi bokkul woon ca yeñu programmé woon dans le rôle jërë ngeen jëf mbokk yi kon li moo doon xibaar yi euh, ci bile vidéo fa yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon rek bu ci yàllande laata loolu war di like di ci seen seen ku dee gan ci page bi te abonné go ñu ngi lay ñaan nga abonné activé sa ko defee lu dugal ci vidéo nga bokk ñu koy njëkk jot cant ak ngërëm ñoo ne leen 14 régions du Sénégal foo leen mënte ne diaspora bi kenn demul ngeen des jërë ngeen jëf léeg-léeg yeneen xibaar ci yeneen bu ci